Euh, dafay baax ngeen xam lu tax avocat ñu suspendre ko yéen journaliste si ñëwoon ci salle audience yii passé gis ngeen Ousseynou Fall ni mu ñëwee song juge bi xërtal ko di ko yuuxu di ko ñii sa ginnaaw encagoulé muy force de défense yi nañ fi jógee laa wax tout de suite yaa may wax lii am ci audience man maa moom la police de l'audience je suis le président mu ne ko bu mu dal koy wax yu bon man démb dama saaga ndey ma ne ko baal naa la mu des sama di ma daggal saaga yu tàng jër jër jër jër ki moom boobu nekk tul avocat de suspendé nañ ko pare mu sol costume bu rafet toog sama gi daal di ma lu ma wax rek ma dégg benn saaga dal ma ko baal naa la yàlla na may xoli muñ donc li tax ñu suspendre ko mooy ñàkk teggit gi mu wone tribunal bi réewande gi mu won tribunal ñàkk worma bi mu won tribunal ñàkkal fayda bi mu ñàkkal fayda justice ak ordre des avocats bi xam ne faalewu leen da ngeen saaga suba ngoon faalul bâtonnier faalul conseil de l'ordre faalewul nawle bi faalewul kenn kum faale li ko neex daf ci daf ci daf ci nuróo nag ak Ousmane Sonko ceux qui se ressemblent s'assemblent dit-on ñi nuróo rek lay ànd Ousmane Sonko faalewul kenn avocat boobu faalewul kenn par des avocats nag bi nga xam ne tegoon na may daan man mii waxe yéen teg ko daan Ousmane Sonko nii dañ ko bëgg a néewal doole